ausbillahi mina seytaan rajim yi bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziar te di leen bal ak jiite ci nuyoo bi nag suñu kilifa sëriñ Muntaxa Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool téewéral li di nuyu bu baax di ziare sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal lool Fall téewéral li cëram di nuyu mboolem kilifa diine wala kilifa aada gu jàkkaarloo Waarwi TV di ko seetaan seen Waarwi TV nag ci jotaay yi mi def ak doxantu yi nga xam ne da koy dox sa émission nag tey ñëwaloon fii ci Tawfekh bokk ci dëkki sëñ Sidi Maxtaar yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem tey jii nag fi leen ñëw wol leen Tawfekh li nga xam ne noonu la nag askan wi dëkke ak li nga xam ne mooy seen nekkin fi sëñ bi bàyyi woon ba na ngeen si dafa mel ni jóge wuñ ci damay ànd ak Sané ci caméraman bi ci kàddu gi soxna jaar ñu dugg ci biir ndax saa su ne émission seet naa leen ni ma la koy waxee fu ne lay dugg di seeti askan wi di seeti mbokk mboolem jullit yi ak taal bi di nekk rek dana la fa Sëriñ Tuubaa Touba la njabootu Serigne Touba nekk fi moo waral tey Waarwi TV ñëwoon fi nekk duggal leen ci biir dëkk bi wan leen li nga xam ne moom la askan wi di dundee li nga xam ne moom la askan wi di bëgg ka bëgg seeni bëgg-bëgg ku xool dëkk bi macha allah naam sori na Touba waaye nag ci baax ak sëñ bi courant am na fi ndox am na fi dañuy ànd ak saane ñu dugg ci biir dëkk bi mu gën leen a woon tawféex naka la ñu dëkkee bi fi sii Sidi Maxtaar bi àjjana ak léegi mu bàyyi leen wéetaay lool waaye nag bàyyi seen xol yi ngëm-ngëm ak bëgg-bëgg ji nga xam ne sëñ Sidi Maxtaar defoon na ko ci ñoom ba léegi waa tawfeex ñu ngi koy dundee kon nag saana ñu ànd ci biir woon leen dëkk bi. waaw fii de tawfeex euh, Cheikh Moustapha Bara sama turando moo ko sanc 1953 boobu la sëñ Modou Bara mi njëkk nekk xalifa Cheikh Modou Bin Bara génn àdduna 1952 ci cat la bi ñu ci 1953 bi mu demee 1954 55 man mi maa fa njëkk a judd ci góor ñu sama baay tudde ma ko. ba loolu kay muy euh, jàng ak jàngale ak yar teg yoon siraatal mustaqim dunde suñu ñàkk nag rek lu ci gën a tuutuun ak lu ci mag magee lu mu la wax moo nekk ci moom. sëñ Moussa Bara yàlla dafa dogal moom li mu am ci ay doom yu góor yëpp dañoo jiitu ji bi muy nelaw 1993 maanaam juróomi doom jigéen rek la fi bay waaye bàyyi woon benn doom bu góor. noonu nag fekk na laata muy nelaw bi mu nekkee ci tër bi bind na benn lettre Cheikh Sidi Moukhtar jox ko ko fekk boobu Cheikh Sidi Moukhtar mi ngi Ndakaaru mu bind ko ab naa ñu gisee ci fan yi ndax am naa tukki bëgg a tukki ci xaw ma danaa fa yàggam déet ndax boobu ci waajkaay la nekk yàggul dara nag ba lettre boobu demee nag Cheikh Mous Cheikh Sidi Moukhtar ci toogal man maay ki war a ñëw yaa dogal bi Cheikh Moustapha nelawee bañ dem ci bisub tàggat fii ci tawfeex kon lam ko man maay ñëw kon ñëw na loolu ci la bokk Cheikh Seydi Moussa daal fii ko indi indi fi ay soxnaam indi fi ay dongo bàyyi nu fi ñun ñëpp loo fi gis moo fi def goudron bii moo ko fi def lamp yi moo ci def téeméeri million ak ñaar fukk forage bi daal laa xam ne xëy na moom état moo fi def waaye leneen loo fi gis moom Cheikh i Mokhtar moo ko def bi fi indi courant bi tamit juróomi village yi nekk fii yëpp la yóbbu muy taw feex gii ma dëkk ak Touba Arène kër kër sëñ mag soxna Ami Mbàkke la tudd kenn ki ci toppaat moom tamit soxna euh, Jami la tudd euh, soxna Ami la tudd keneen ki ci toppaat Faty la tudd ñaari Faty ak ñaari Ami ak ku ñuy soxna Jami Mbacke muy juróomi jigéen ñooñu la fi bàyyi loxoy dëkk ak yow lam ñu bàyyi woon kenn dañuy a yokk yokk waaye fas nañu ne lu may defar sans bopp la ndox mu neex dana ci bokk barab bu fajukaay tamit dana ci bokk de bari moom jot ko foon andi nag moom loolu daal bokk na jafe-jafe yi beneen bi ci des it dama xamul dana neex saafara am déet muy wàllu tool yi ak jur gi soo bayee bu mbay bi ñoree am na ñu taxaw temm ci yàqu ko loo yeew sa kër it bu ci teg ko sa baaram tegee ko ci des na ko yóbbu loolu daal bokk na jafe-jafe yi moom. balee kilifa yi ñu ngi fi jëw macha allah. Alaaji Moustapha Diaw. Xaadim Diop la Tawfeex. kër si di Mokhtar. waa di wax ci kàddu ndaw ñi rek soo defee ñu ndaw ñi bëgg nañ ku ñu jàpp lu baax a baax ci waa tund ñëpp rek waaw bàyyi benn sën ndax ay gone lan ay yu góorgóor daal bëgg ku leen jàppale bu baax a baax a baax a baax taw fi bi am na ay ginnaaw bu baax a baax ndax village yi yaakaar naa ni ko ko xoolee ñeent dëkk la ak ñaar yëpp amuñu courant moom courant bi courant bi yëmul euh, weesuwut fii wala gën ngaa gàtt ñetti dëkk mbaraaka na fi am courant ndaam loo waaw ñetti dëkk yooyu fi am courant daanaka la ndox mi am na gox yoo xam ba léegi amagul ndox wa ndax li coolo joxe taw feex moo fi am forage ak dëkk bu ñu wax yaari Dakar ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax xaaruñu état ci dara mais mënu ñàkk nag ñu xaar état instant bi dëkk bi mbayee fi am waaw mbayee fi am bu nooree gaa yi gën dem fa mel ne dëkk taax yi daal di ma wuti dara waaw bay rek la ñuy def wax dëgg yàlla amatul la ñuy defaat waaw jafe-jafe tamit son nañ trop ci wàllu jur gi ndax fii mun a fa dara jur ko ñu sàcc ko mënuñoo farme be équipe bu sécurité ba tey waaye lépp loo mën di gis wàñño ba gis tàmbali lay doon c'est la première fois ñu doo ko mën a am sax télé nii bu mën a teew taw feex pour jàllale lii non mosuñu ko demandé fenn wala kon bëriwut waaw c'est la première fois daal moo nekk ñu bëgg daal ku ñu jàppale si lépp ndax ay ay doomu aadama lañ comme ñëpp dañoo bokk ci réew mi te ni ko gis sax dafa mel ni gouvernement wuñu si dara dëkk bi li fi am lépp Cheikh Sidi Mokhtar suñu sang bu tedd ba moo fi defar lépp bu dee tali moo ñu defaral bu dee courant moo ñu ko ko bënnal ñun ñoo dëkk fii ci Touba Tawfekh tur bi ci ci ndox ak wàllu tëli ak wàllu courant lépp moom Cheikh si Moukhtar moo ñu ko fi indil waaw ñu di ko sant bu baax ñu di gërëm di ko ñaanal yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem. léegi moom wax na ñu jigéen ñi daanaka nag ndax gisuñu daanaka kenn ku ñu jàppale lu lu mën a liggéey daal te soxla nan nag ku ñu jàppale ci wàllu porosé bëgg na ndox mu neex ndax amuñu ko te bu amoon ndox mu neex danañ mën a bay ay tool yu dër danañ mën di liggéey. ndax wax dëgg ay jàmbaar a fi nekk daal bëgg nañ ay machine wal ak machine soq kuñ ci dimbali. am na nañ machine soq fii ak ak benn machine wal waaye moom ba seex Cheikh Sidi Muxtaar moo ñu ko fi indil waaye dëkk bi ñu nekk mu Bulkam moom it amul machine wal amul machine soq ak tund yi ñu ñu wër ñëpp moom itam ko. ñun am nañ benn groupement moom mbootaayu jigéen ñi am nañ groupement bu mbootaay. formation yooyu dama wax dëgg yàlla amaguñ ku ñu ko defal am na benn dër bi buñ fi doon dox waa xam naa ba tey mujjul sotti daal waaw. bëgg nañ nag ku jàppale moom ñu mën a liggéey deet bi mooy liñ mujjoon a bind da ab ah. ah waaw loolu am nañ fi luñ bind waaye moom ba tey wax dëgg yàlla kenn kenn joxaguñu fi dara daal waaw xanaa kii bi ñuy dimbalee jigéen ñi daal eh, dong la lan fi gis ñu di leen ko jox bu nawet bi jeexee kay tëdd dong la ñuy def lin alin bayoon ñu toog lekk ko jàpp ci yàlla kese nag amuñ poos si sant bëgg nañ ku ñu ko defal mooy ndax wax dëgg yàlla fi mu ne ko feebaroon wala nga def jigéen wérut aw mat yella guddi léegi yaa eh, ñu ngi lay sëf ci wala nga woo taxi man naa am nga jot borom taxi ba man naa am doo ko jot yooyu jafe-jafe yi am nañ ko bëgg nañ kuñ ci jàppale wax dëgg soxla nañ ndimbal moom wax dëgg yàlla soxla nañ ko moom lépp loo fi gis daal seex Sidi Moukhtar ji ko fi defal waaye gouvernement bi moom wax dëgg yàlla defal gu ñu dara bëgg nañ ndimbal na lool ku ñu ndax ay jàmbaar a fi ne ay borom joma fi ne bëgg nañoo liggéey danoo gisut ku leen jàppale daal waaye bëgg nañu liggéey. mbokk yi yéen ñi jàkkaaroog ñun ci seen télévision Waarwi TV lii la leen émission seet naa la dafa jógoon tey seet si waa Tawfekh bu sëñ Sidi Maxtaar yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem dégg ngeen li nga xam ne moom la askan wi jàmbat ci lu manqué rawatina jigéen ñi ak ndaw ñi jigéen ñi nag naam projet yi ñuy dégg ak ndimbal yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci ci réew mi ñoom waa Tawfekh gisuñu seen bopp kon nag ñi ngi tàllal loxo ministre de la femme ak képp koo xam ne rek yor nga ay ndimbal yoo mën a dimbalee jigéenu feex ban ban a liggéey parce que soxla nañ ay formation lépp loo xam ne jigéen daf cay mën jaar yaxantu soxla nañ ko dégg ngeen ndawi dëkk bi magi dëkk bi tamit dégg ngeen li ngeen wax ndax lépp lu fi nekk rek jëmm ju baax jooju jëmm ju tedd jooju nitu yàlla kooku moo ko fi indi woon muy sëñ Sidi Maxtaar yàlla na yàlla loo ko ay leeral bi sëñ Sidi Maxtaar ne la ba na si nag dëkk bi ni mu meloon rek la dara yokku ci foo dara wàññiku xanaa forage bi leen mën a wax ne moom lañ fi mën a wax ne moom la fi état def kon mbokk yi yéen ñu ñi seetaan saa su ne rek émission seet si naa nii lay demee day dem ci nit ñi dem ci dëkk yi mboolem foo xam ne rek doomu adama nekk na fa incha allah waari dina ñëw ànd ak seet naa la ñëw seet si leen ñu waxtaane ko ndax yoonu murid des koy waxtaane Sénégal gépp des koy waxtaane kon nag ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez ci beneen weer incha allah ci barke Serigne Touba jërëjëf